jii moom ak dama ne woon ak céet la céet céetu xam-xam la céetu xam-xam la tey moom loolu rek la di yàlla xam ne ne moom léegi borom xam-xam yi laa laa bëgg a teral man dama bëgg a teral borom xam-xam yi seet bi mooy alxomda seet bi mooy alxomda ab seet la dama ko bëgg teral kan mooy bàyyib seet bi bàyyib seet bi ku mu doon Cheikh Mouhamadul Muntaxa mooy bàyyi bi kan mooy nag nijaay ja nag sëñ Maamoor Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Moutala yaakaar naa kon cër gi kon war naa nekk kon de ah di yàlla ñaari ñu seq seet bi moom di yàlla war naa ne war naa neex lool teyit teyit wane na na ko ndax sëñ Maamoor moom jóge Ndakaaru xis sa ngir jataay bi képp moo tax mu ñëw loolu lu rëy rëy la loolu moom lu rëy rëy la liñ li ñu bokk lépp bokkut ak nag lii lii moom xam-xam a tax mu ñëw sëñ Cheikh mi mi ngi nii moom moom Cheikh Mouhamadou Mountakha sëñ Mountakha sëñ Mamadou Pakala nee na sëñ bi da koy génniwaat ci ay yitte ñi ngi sant borom xam-xam yëpp di leen teral xam ne seen bisa de man xam damaa jaral ba may jàng dana fi wax gént gu gént goo xam ne dafa am dilaa la 85 bi ma waajee ba ne maanaam bi ma waajagut a dem keer damaa gént gis sëñ Tuubaa maa ngi ko fekk ci néegam ñax mu toog ci bunt ba ab yor-yor tiim kamil bi ak soxna nuyoo asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam soxna sukk ma sukk muy ñaan la muy ñaan ma ngay wax ca kaw naan wa xaatilul mushrikina kaafa kama yu xaatilunakum kaafa booba bu ma xëyee kaafa gi dama ko bind ndax tax man li ma xamoon mooy kaafatan ci daara rek gu gàtt googu man laa xamoon waaye kaafatan gu gudd woo xamu ma demee keer jàng tajwid ok ci laa xam ne ok kon kay sukkandu xaarit gi tax nga xam ne baat bi xiraa bi ci Sëñ Tuubaa laa ko jëkk dégg man léegi nag ba ma demee léegi may tansiq jaamia ñu ne ma am nga ñeenti option ma def lépp kullitu usulu diin qismu aqida wal falsafa gaa yi ne ma waa yow bu ñu la ko may nag ma ne kon ma ñibbi waaw xam nga man daa am lu ma tax a jóg déedéet man man man jànguma ngir jàng de déedéet daa am lu mu tax a jóg man foofu foofu it am na fi lu lu ndaw loo xamante ne ci war naa ko wax jàngkat yu yu ndaw yi benn widaay diyee ca kees dañu ma caa woo ne ma bokk ca ay arabisant ma ma ma bañ bañ ñu ne maal nga dem ca ma dem may leen ana daarisun bil luxal arabiya man duuma ab arabisant france français man damay jàng ngir xiraa asnat yi man xam-xam fi ñu toll loxol arab bi mënuma ko xam nga ci taxa man du ma jàng loxob kenn man linguistique la jàng linguistique fiqul loxo lay jàng waaye du ma jàng man loxob kenn man maanaam man damaa gëm sama bopp ba sama bopp rek waaw loolu it loolu lu am mana la fiqul luxa fiqul luxa lu am solo la baat yi mana yi maanaam bu amee ci li ñu tuddee al insiah dilali ci ab baat nun nun fëlté nuñ dañ koo soxla baa tub baa tub caga ca jëkkoon lu muy firi jigéen joo xam ne dafa sëy ba tas ana diw timis yoon na ah moom day daggit ah ab caga la mooy xam na boppam kooku moom du foo tey baat bi léegi mu ne su ko wax al irhab xoolal ca ca alxuraan turhibuna bi bi yaadu wallaahi léegi nag saxafa ni ñu koy jëfandikoo loolu la ñu tudde al insiyah ad dilali maanaam déviation cognitive man li nga la man moom lay jàng waaye jànguma luxa loolu it am na yu lu am solo ca keer man loolu laa gëmoon mooy ne jànguma ngir liggéey man damaa jàng ngir xam man man sama escalier mooy maanaam man sama escalier mooy dama ne laaj yi faw nit ak boppam bu jëmee fenn loo fi indi loo fi indi fii tutum naa koo fi indi yàlla loo fi indi ma ko fu ma jiyam alaxira nit bu ko laajul boppam kon du dem fenn de déedéet faaw nga laaj man nag damaa am Maodo wax ya damaa am Maodo wax sax mënut a nekk moom waaye damaa am gëm-gëmub lépp loo ma séen ma ne ca dëgg lay doon fii man saa bu noppee nekk dëgg fa man ma génn ca ko am fulla la ci ne damay wax ker ni leen sëñ Tuubaa su ko ñëpp weddi woon kon kon jumaa ja day féex fi man rek jumaay Tuubaa ji waaw loolu gëm-gëm la gëm-gëm la bu am solo ma ne leen it nag gëmuma ma Tuubaa ngir ngir diw damaa xam ne dëgg la may leen saa su ma xamoon ne nikkul safaan dëgg safaanam dëgg la ma génn ca te kat ma naan nangu naa wéet man wéet bayit wa imaam xasaali daa wayantoo faridun an ilxullaani fi kulli baldatin ida azuma almatlubu qalla almusaahibu loolu am solo la man damaa ñëw witaay loolu it ma maa koy wax ñi bëgg jëm fenn waaw ku bëgg nee naa ñaar ku nangoo wuta wéet nangoo diñe nangoo nangoo wéet doo asgor asgor day nangoo wéet nangoo loolu it lu am solo la maa ngi koy wax gone yi ndax ndax sëñ Mamor dama bëgg jotaay bii mu nekk jotaay boo xam ne ne xam-xam dana jël juddu murit gi xam-xam juddagul de man ndax ndax dañuy tari rek tari tari man dama naan nee naa man dana jàng xasaali jàng Descartes jàng Kant Husserl jàng Hegel naan ñoom ak ñoom rek anama man anama xanaa ñoom duñ nit loolu loolu lu am solo la xoolal fuqaha yi fuqaha keer damaa wax si sëñ Samb Bousso mi ngi fi ne ko ne ko zihniyatul awra damaa nekk ci tefesug Iskandariya gi gis jigéen naar yi di sol ay robb di sëmb ci ndox mi góor ñi sol ay silib di sangu ma ne ko waaw lii mooy lan moom ma ne ko ma ne ko am na ko am na sawtul mar'ati qaa'ibun fil fiqhil islaami yi maanaam bi ñuy bind awra góor moo xool jigéen ne lii day damay yëngal kon muur ko waaw ana jigéen ne dañ ko jigéen ne ko xoolal ñu lu lay yëngal ci góor ñu muur ko kooku kon fuqaha faqihaat jigéen ñi war ngay doon a fiqaat léegi critique critique def benn critique boo xam ne al awra maa ngi tudd maqal ba zihniyatul awra luy awra awra ne awra góor gi moo moo ne li awra la ana jigéen ji jigéen ji doo ma wax awra luy ci ci man wax ma ko yow waaye góor gi du ma ko wax loolu loolu lu am solo la loolu loo xam ne moom it bokk na ci li war a bees fiqul islam yi war naa bees beesaay boo xam ne jigéen da cay am baat yéen nag dëgg yàlla amugul baat de yéen jigéen ñi waaw am na waaw loolu loolu kon kon maa ngi sant ñëpp rek docteur Abdoul Ahad Lo ci fet gi la bokk ci cër gi la bokk waaye nag ay mbokkam ñoo ko woo fële euh, xam naa yëgoowuñ woo ma nee na yëgoowut ak ñoom di ko defal lu mel nii ca sorra waaye moom ci la bokk xaadir la xaayib la waaye nag moom jàmbaar la ndax jëf doctorat bi mu def ci ci ci turaasu mag ñi seeni way ak yooyu loolu kon am na solo lool xam naa sëñ Maam war nga may ma rek ma wax dara loo xam ne damaa bëggoon a wax loo xam ne maa ngi koy tuddee ixlaanu daarul alimul xabir 28 min jumaada thaniya 1441 tuwal maharusa mooy lan kattaan yi man de maa ngi wax ne maa ngi inauguré man a ma ne anaal kokk yu Mouhamadul Moustapha oxlinu an taddi sinil al madrasa al al alima alaalima wa tunaadi bi iaadati qiraati turaas bi maqulaati alulumi alinsaniya bi wasfiha aaliyaat xafru maxrifiyi baxda taxqiqihi wa tabxihi tabxa dawliya ثانيا توفير مناخ علمي للمفكرين والكتاب ثالثا توليد مفاهيم خديمية تطابق الأصل وتثورها a رابعا قراءة شيخ خديم قراءة عالمة لبناء فكر خديمي إبداعي صوفي علم حر maanaam moom li may wax li nga xam ne moom laay woote mooy ñu ubbi école boo xam ne xaar si Sëñ Tuubaa lay jàngat waxuma taarix rek ñu la ci ci géej gi moom magal goo wax moom gone yi mokkal lañ ko ba ko yur ngi far loolu moom du dara moom gone yi dañuy ñëw fi man maanaam magal gi moom li liñ doon wax lu mu doon kenn xamul lu ñuy wax loolu du pensé rawdu raahin war nañ ko jëm ñoom maanaam rawdu raahin war nañoo xajal fuqaha falaasifa yooyu ñu dugg ñoom it fuqaha yi rek kay bind fuqaha yi kay wax loolu nag moom dëgg yàlla nag maa ngi des na fuqaha yi képp nag nekkuñu fi waaye am am nañ ñeneen kon falaasifa yi kon nañ leen woo ñu ñoom it dëggoo la jot kon ma ne maa ngi woote ñu jàngat ak trois li fi maam yi bàyyi woon teg ko ci concept yi nga xam ne moom la ulum insaan yi di jëfandikoo ko elma itima elma nafs am na lu ñu tuddee elma itima al maarifi yi am na ah fiqul luxa léegi nga sikk fiqul luxa nag waxuma fiqul luxa arab yi jikko de loolu moom du dara moom